bonjour monsieur le président merci monsieur le président asalaamaaleykum cher ministre maa ngi leen di nuyu monsieur le ministre des finances et du budget monsieur le ministre du travail monsieur le ministre des pêches et euh, j'ai en profité nuyu délégation yi ngeen àndal nuyu sama frère euh, l'ancien DG de l'APIX et le nouveau directeur général du port autonome de Dakar Mountaga Sy mais ana sama maire dafa tuuti ba mënuma ko gis le maire Valdiodio Ndiaye derrière maa ngi kaa nuyu di ko euh, di nuyu ñëpp di leen wax monsieur le ministre euh, man dama ñëw ce sera très difficile de parler derrière mon fils Guy Marius Sagna mais j'ai essayé quand de relater ce que je pense et ma pensée euh, de ce ministère monsieur le ministre euh, waxoon naa la ni la li nga xamante ne mooy Euh, marché central au poisson bi nga xam ne notre frère moo koy diriger ñu jël recette yi waxuma sax léegi moitié entièrement laa wax parce que la la réponse ne ma satisfait pas donc léegi waxuma sax moitié jëlal entièrement ma je demande ça au gouvernement de donner l'entière recette au à la ville de Pikine parce que loolu moom mooy dëgg nit bu jëf ñëwee implanté wu ci sa dëkk amoo tali amoo dara mënoo régler dara dañ lay jox recette ya ca ne te loolooy dëgg loolu inégalité la loolu tooñ la moo tax ma ne dama doon wax moitié ñuy tëb réponse bi léegi dama ne entière monsieur le ministre dañu wax ne joxe nañ vingt et un licences aux étrangers joxe cent quarante licences aux bateaux nationaux defe naa loolu waxoon naa ko gis naa ko ci rapport bi wante man dama jàpp ni li tax réellement que nag ma bokk ci ñi nga xamante ne immigration laa def xam naa ni immigration clandestine commencé wul ren commencé wul daaw te du jeex tamit après vous avant vous et après vous day ñëwaat mais quand même flux bu mu am actuellement amatu ko woon lan moo ko waral dañ ne géej gi amatuñu ay jën moo tax nit ñi nappatuñu ñii ne repos biologique la ñii ne du repos biologique dañoo jaay ay licence yu bees yoo xamante ne dañ bi nga ñëwee sa ministère ak tey lañ ko fi jaay moo tax ma laaj la keroog nela lan lan moo ci am réellement la réponse n'est pas venue monsieur le ministre loolu ma ciy jaar di la wax le contrôle de nos côtes ça vous revient ou ça revient à la police wala à la gendarmerie si c'est le cas prenez toutes vos responsabilités ngeen àndandoo yéen ak sa ministère ak gendarmerie ngeen contrôler suñu côtes yi parce que ce budget là n'a pas voté pour faire du mbaxalu tubaab monsieur le ministre man jàpp naa ni euh, la collaboration de la gendarmerie dina am solo ci surveillance bi wante volonté wu ministère bi aussi dina am solo ci surveillance de nos côtes pour xale yi dootuñu embarqué ak deux heures ak trois heures du matin je pense que nag waxoon naa ko ba pare a wax ak koo xamante ne xëy na booy wax ak moom parfois da lay ngóo bi parfois da lay ñaawal amul benn sens wante nañ ko wax rek te dee jóg fi dem maa ngi nuy général Jibi Ndiaye bu baax a baax ak ñi mu àndal merci beaucoup.